إلا وردا دون سوء عند سرسارا لو صنع يواريد وعن البلا ثقات مسقاد لي من بني ديمان أنساره لله كل لداه أبار ما كرمات من أرتلنا وفي أجم من سارا إن الذين إلى سرزر خير قسدوا سيارة الفارخ دائرين أو شارا إن الذين إلى سردر قد قصدوا سيارة فارغوا دارين أو سارة نار يانغران دي تواي kajoor a gën sunum réew Seex Bamba mbër ma fa feeñ feeñut fa gànnaaraay jërëjëf Bamba Dior jërëjëf ci li nga xam ne moom nga yëkkati ci bërëb boobu bërëb bu sell boobu noonu nga xam am di wa sukri li man kulli bi saa lawri dan doona suutin inda sar لو صنع واريد وعن بلا ثقات مسقاد لي من بني ديمان أنصاره لله كل للدا أبار ما كرمات من أرتلنا وفيه أجام من سارا إن الذين إليه سرزار خير خسادوا سيارة الفارخو دائرين أو شارا إن الذين إلى سرزار خير خسادوا siyaaratin faaraxu daarayni aw saara naar yaa nga naan diita waay Kajoor gën sunum réew Seex Bamba mbër ma fa feeñ feeñut fa Gànnaar jërëjëf Bamba Dior jërëjëf ci li nga xam ne moom nga yëkkati ci bërëb boobu bërëb bu sell boobu noonu nga xam. waaw kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Eh, sëriñ siidi ñu ngi lay nuyu baax Mbàkke di la ziyaar di la jox sa wàccuwaay di la jottali itam nuyoo mbooloo mi ñu àndal yëpp ci turu sëriñ. Modou Kara Mbacké moom sëñ Modou Fati Xarim moom ma Massamba dend ak sa mbokk sëriñ Abdul Karim moom itam ñu ànd ak moom ci yoon bi ànd ak uh, soxna Ndey Mbacké mu soxna Bintu Madina ak soxna nday Saynabu Mbacké mu sëñ Modou Fati Xari moom seex ma Massamba ak soxna Jamil Mbacké ak soxna Maam Jaara Mbacké waaye ñu ànd ak suñu xarit uh, sëñ Mohamed Soxna Euh, Seydina Aliou Ba suñu secrétaire général euh, ànd tam ak ajaratu Faamaloo mi nga xam ne moo jiite fédération ahlu café ca Dakar ànd tam ak sëriñ euh, Ousmane Baan ak bokk yu jóge cinquante dem ci frontière bi daje feek sëñ Mouhamadou Diop mii nga xam ne sonn nañ lool ci yoon bi ak sëñ Abdou Assis ak sëñ Moulay délégation yi nag jógee Sénégal partout nag Dakar Eh, Thiès Touba Mbour eh, fu nekk ay bokki taali bi jóge nañ fa àndandoo tam nekk benn muy lu rafet loo xam ne waa presse bi ñu àndal sax ñu ma ko doon seedeel ndax bi ñu ñëwee dañoo boole lépp def ko muy benn soxna Aida Dem mi ngi ci délégation bi ndax moom itam ñoo ko fa jiitu tuuti waaye bi mu ñëwee dafa ñëw rek jokk ci ñun ñu xaar ko mottali formalité yi ànd def benn convoi ba egsi fii ci kër gi ñun ñëpp tam ñu jaarandoo fi xaj na nag mbooloo mi xajuñ ci biir saal bi waaye seen xol xaj na fi waaye ñoom ñëpp Mbàkke ñu ngi lay ziar di la ndokkeele ci 19e édition bi nga xam ne moom lañ tudde Cheikh Mamadou Fadal yàlla dogal na tam njabootu Serigne Fallou ñu ngi ci yoon di wàcc fas yéene ñëw suba incha allahu taala ñoom itam li ñu waroon lépp ci yombalal leen yoon bi liñ ci man lépp def nañ ko ko nag li nga doon ñaan euh, sa maam dafa mel ndax sunu borom subhaanahu wa taala dogal na eh, ñun ñëpp ñoo àndandoo ndekkee Louga jógeendoo Louga def benn convoi ba ñëw Rosso añandoo fa bañ noppee tam ñoo départ andoo ba ak si ci kër gi wax dëgg yàlla amuñ tam benn jafe-jafe yoon wii lépp jàppandi na ñu ànd itam ak sunu mbokk yi nga xam ne ñooy taxawu press bi ñoom itam ñuy ay jàmbaar eh, nga xam ne ay organes yu wuute ñëw nañu di couvrir événement bi fas yéene ko ànd ak yéen ci tàmbali ba ci jeexital maanaam ànd nañ ak juróom-benni biche ak juróom-benni oto yu ndaw délégation bu toll noonu nag yaakaar naa ne eh, ren mooy bu njëkk mu am kon nag ñu ngi ciy sant suñu borom baax a baax di wax ne ñaan gi nangu na di la jottali itam nuyoo soxna maam Issa Mbacke ahlu café nee na tam eh, xañ na téewul waaye teew na ndax ay rakkam ñu ngi fi ay magam ñu ngi fi ay soppeem ñu ngi fi ay xaritam ñu ngi fi ay taalibeem ñu ngi fi kon nag ñi teew ci délégation bi kenn ku nekk mën na fi teewee jëmmam ndax moom dafa jàpp ne rek njabootu sëñ Tuubaa ku teew rek moom nga teewal kon nag ñi fi teew ñëpp moom lañ fi teewal nee na mi ngi lay sant di la gërëm di la ziyaar di la ñaanal tey sàkku ci yow ñaan nga ñaanal ko suñu borom defal ko tawféex ba incha allah nam ko doon defee rek tam lañ koy defee moo tax bi ñëwee teggiwuñ fii ndax lu masaan guddi guddi su ñëwee day ànd ak délégation bi jaar ci yow nga ñaanal leen xam ne say gan egsi nañ foo leen joxañ rek ñu jublu foofa kon nag Mbàkke ñu ngi lay ziar baax a baax di la ñaanal gudd fan gu baax yi ñu àndal di leen ñaanal ñoom itam sunu borom yàgg leen fi te may leen wér ak taalibe yëpp ci barkib Serigne Touba asalaamaaleykum wa bi nee na mi ngi leen di sant rek Serigne bi nee na mi ngi sant mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne nee na ñoo nekk ci ginnaaw sang yu tedd yi nee soxna maam Isaat nee na fii moom barabam la nee na te liggéey bi itam soxna maam Isa daf koo àndeek ñoom fu yàgg ba tey nag mu indi ko fu sori nee na mbo nee na nee na délégation yi sax lim bi moom daanaka mën nañ ne ñëpp rek ndax ñëpp a teew waaye waaye nee na jar na ko bu baax nag nee na nee na tànk yi nga xam ne yëpp jéggi nañ ko te tara taxul ñu jéggi ko lu may waxam ji mu wax ne inna lazina ila sarsaara xat xasadu ziyaarati faaraxu daari ne aw saara lu ko jar la nee na kon nag ñun ñëpp dañuy maase tàbbi ci wax jooju rek nee na nag loolu jar na jóge fu ne di ñëw nee na muy wax soxna si at mu ne rek nee na yéen yéen a ñu gañe ndax ñoom fi ñuy jógee dem Sarsara ñun fi ñuy jógee jot Sarsara moo ko gën a sori te dañoo wax ne ku jóg jëm ci ak jaamu yàlla bépp jéego boo jéggi rek ak jaamu yàlla la kon nag nee na li muy wax bokki taalibaam yi rek ñu ngi leen di wax ahlan wa sahlan jóge ngeen ci seeni kër waaye yegg si ngeen dem ci seen kër kon nee na daal mi ngi wax gan ñi nañ daal ak jàmm nee na suñ boroom defal nu tawféex te may ñu lépp luñ fi sàkku si jërë ngeen jëf jërëjëf Mbàkke jërëjëf Mbàkke waa tubaarkàlla ñun nu waaje dañu waaj ànd soxna Aïda Deme jëwrinu maam jaara Masaalikul Jinaan ñu waaj ko nag ànd suñ suñu jëwrin Alaaji Mbàkk yu fay ak suñu yaay Adja Gamou Diop suñu jëwrin ñëw fii nag ci Sarsara waaj ko nag xam ni sëñ tubaab bi mu ñëw fii metti woon na ñu waaj nag bëgg fu sëñ Touba eh, nekkoon rek ñu waaj fa siyaar ko ndax ñun murid rek la ñu xam te loolu la ñu baaxoo di sant ajaa Aïda Dem bu baax a baax a baax ànd sant mbooloo mi ñu àndal. ñaata bis ngeen. waa tubaarkaala Adja Aïda Dem am indi na juróomi bis ànd mbooloo mu takku nag te la ba ñu déparé Masaalikul Jinaan ba bi ñuy egg si euh, euh, biir Mauritanie dara manqué wul xiifuñu maruñu yëguñu métit bi yëguñu coono bi di sant yàlla bam ñu booleeg ku baax ñu ànd ak ku baax ñëw di seetsi ku baax. ba amu leen jafe-jafe ci yoon bi ci lu mel ni ay këyit ak yu ni mel. déedéet amuñu benn këyit ndax suñu jëwriñ tubaarkaal daf ñu daf ñu fàgguloon yooyu yëpp ndax biñu ne Masaalikul Jinaan biñu ne dañuy waajee ñëw la la la photocopie kenn ku ne sa carte ko ñuy egg si ku ne mu récupéré sa carte d'identité kon benn problème ci ànd ak suñu aja suñu jëwriñ tubaarkaal Adja Aïda Deme di ko ñaanal yàlla nag ñu dund ba indi fi fukki biis ñu mu indi ko fi sa kàddu yi mujj. rek mooy gën a gën a soññaat taalibe yi gën a gën a soññaat taalibe murid ñu takkuwaat ndax suñu jàmbaar ji sëñ Touba ñun mënuñu ko fay di ñaan yàlla daal lépp li fi indi rek muy wéy di na ko sama borom euh, faj muy njàqare yàlla na ko sama borom faj indi ñu xéewal nga dinañu ko te saare ko nag ci réewum Sénégal gépp te indi jàmm nag senegal ga ñu bàyyi ko bi suñu réew ma ñu bàyyi koo ñëw fi yàlla ñu fa dégg jàmm fekk fa jàmm ci barke borom Touba delluwaat nag egsi nañ ci jàmm delluwaat ci jàmm te kenn ku ne del sa njaboot te kenn ku ne loo fi ñaan rek yàlla na ko sëñ Touba nangu te defoon ñu wér defoon ñu xéewal ba ñu yàgg fee teew di sant nag di wax jërëjëfe sëñ Bamba jërëjëfe sëñ Bamba jërëjëfe sëñ Bamba jërë ngeen jëf am di wa sukri li man kulli bi saa لو ردا دون سوء إن سرسارا لو صنع يواريد وعن البلا ثقات مسقاد لي من بني ديمان أنساره لله كل لداه